وصلنا لخير البرية يا حي يا قيوم ñëwaat di wax ak yéen di leen defal fi ñu toll ci liggéey bi wax ne liggéey bi mu ngi avancé ndax gros œuvre bi daanaka tey ji intérieur mosquée bi gros œuvre bi quatre-vingt-dix-neuf pour cent la daanaka àgg na retouches yi ak yi nga xamé né intervention ñeneen ñi moy tax ñu ci ñëwaat rek ci des aujourd'hui électricité bi ñu 58%. ci plomberie bi ñu 60%. ci climatisation bi ñu 70%. ci 70% bëgg nañ fin janvier ñu test ñu testé ko installation yëpp def nañ ko ba sécurité contrôle d'accès bi ñu ngi ci carrelage bi 50% intérieur bi menuiserie bi ñung décoration bi 80% pour l'intérieur de intérieur mosquée bi ci biti esplanade bi commencé nañ ci liggéey ñu ngi def réseau extérieur yi di de clôture bi ñung koy def euh, porte d'accès yi ak porte à peu près 60%.

ndax lépp luñ ci passé rek dañ ko bëgg assuré ba pare ñu ngi ci di sant yàlla bu baax di wax ne en ñi cas ngi jéem a fexe ba nga xamee ne di ñu ñu dénk ñu ci ciy jéem a góorgóorlu suñu kemtalaay kàttan ngir defe ko ni nga xamee ne noonu la ñi nga xamee ne ñooñu wóolu ba teg ñu fi ah xaar ci ñun ñaan yàlla mi nga xamee ne lu mottali mu mat yal na yàlla jàppale ñu ba kàttanal ba ñu mën a àggale fi nga xamee ne moom lañ yéene fi nga xamee ne tamit li ñu wóolu ñi nga xamee ne tamit ñoo ñoo moom liggéey bi ak ñi nga xam ne copine bi nga xam ne ñoom lañ ko dénk ñu wóolu ñu mën a àggale liggéey bi ci fi nga xamee ne fa lañ bëgg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci euh, ñaanu Cheikh Sidil Hadji غير البرية فأنت كريم فالكريم ما التجا إلى بابي يأمن على كل نقمتي فأنت حليم يا صبور من جفا أنا عبدت بادي ذلتي فلما بدا لي أنه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي إليك بذوق وافتقار وفاقة لتغفر لي يا ربي من كل زلة فبين يدي مولاي ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي فأنت إلهي يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي. bon pourcentage lu mu joxe moy moy lolu xam nga travaux yi tamit comme mosquée bi lu ci gëna bëri comme ni ñu waxee ci yenn projet yi secondes œuvres fi presque secondes œuvres bi c'est de la décoration comme mooy luñ koy waxee non décoration bi tamit dafa laaj ñu ci démé ak soin waaw comme par exemple suma jëlé exemple ci ci carrelage bi comme carrelage bi on est à cinquante pour cent mais su doon ay équipe rek yor nañ équipe mais on a préféré dem soin ak équipe bu fi nekk bu yem ci loxo ñuy demee euh, avec soin et euh, qui précaution ak qui mini cité Nous Moi, on est à 50 mais nous que vraiment c'est très bien fait voilà nous voilà. Euh, parce que nous nga wax rek gaw après da lay nous principe bi ak équipe bi fi cadrer à chaque fois te presque ils ont fait presque toute la mosquée Homme la mosquée Cheikh Sela Jumaali ba ñu ngi wara attaqué mosquée bi. léegi soudé ci euh, décoration bi décoration bi comme nous ko waxé c'est-à-dire à dire à 80%. on est à 80% presque intérieur bi sax euh, décoration globale intérieur extérieur intérieur bi presque jeex coupole bu gën a mag bi euh, décoration euh, na moom moo mujjee ci intérieur bi léegi extérieur extérieur bi ak finition panneau mur yeeg yooyu ñu ngi def ki valider nañu échantillon yi comme nuñ koy defee lépp luñ ciy def rek ñom dañuy def ñun équipe bi yëpp ñu xol valider échantillon bi soo amé ay correction yu ñuy def ñu ñu corriger ko ñu démé non légui extérieur bi suñu démé extérieur coupole yi maanaam coupole yi ci gënon rëy yëpp couvrir nañ leen léegi coupole euh, yi desoon doom yi ñu war def doré yi mooy yi minaret yi soo xoolee def nañ minaret homme couvrir nañ ko ak minaret femme couvrir nañ ko léegi ñu ngi jëm ci grand minaret bi foofu la ñuy dem ni coupole yi nekk ci toilettes tamit à 100 pour cent yooyu yëpp couvrir nañ leen au sol am trois yi des mooy nekk ci portique d' entrée ci clôture bi boobu def nañ benn bi léegi ñaar moo def yi nekk ci trois portiques yooyu moo des léegi euh, intérieur ci électricité sécurité incendie contre appareils yi yëpp yi nekk ci plafond yi presque yëpp presque posé nañ leen léegi luy des mise en service ci local technique ba feulé ci kaw esplanade bi moy fuñu def salle GTC bi les contrôle d'accès bi aussi manam lepp luy tëj buntu bi luy tëj chantier bi buntu yeb ñëw na ak palanteer yi ñu koy posé donc au 15 plus tard ñoom dinañ paré yeb au fur et à mesure ñi di def contrôle d'accès bi tamit ñom ñu ngi leen di top di poser contrôle d'accès yi ci buntu yoy légui après lay def mise en service bi fekk quelques temps que local technique ba feulé yeb yemb ñu mun a def contrôle yeeg test yeeg yooyu ko léegi nag lu des maanaam intérieur bi léegi maanaam luy finir lépp luñ koy finiré mu ngi fi livré nañ ko li gën li mujjee woon mooy soufflage clim yi mooy yooyu di sandi air bi yooyu tamit ñëw na soo xoolee fële yëpp ñu ngi koy teg léegi presque li des ci liggéey luy bëri muy esplanade maanaam esplanade lu ko sama sëriñ waxee mooy réseau yi mooy eaux pluviales yi mooy alimentation courant yi mag yi ñëw yooyu yëpp ñu ngi koy commencé di ko def ba def nañ lever topo yi pour caler niveau esplanade bi ak maanaam sooy dugg ci biir jàkka bi léegi ci lañ toll foofu léegi moom la ñuy def local technique bi pare nañ ko maanaam fi forage yeeg groupe yeeg yooyu yëpp local bi pare na aussi toilette li ci suuf carrelage côté femme yëpp pare na def nañ échantillon bi bunt yëpp ñëw na ñu ngi koy commencé di poser comme ni ngeen ko gisee foofu ci suuf léegi en gros sama sëriñ lu mu wax noonu loola te liggéey bi tamit

loolu jar na tamit encouragé et puis di leen waaw góoral ñoom tamit seen côté ñun ñu ngi fii ci terrain bi ñoom it ñu ngi ci suñu gannaaw pour liggéey bi yemb fi parce que liggéey bi soo gisee mu egg bi ça veut dire xaalis def nañ ko ci bu baax a baax du des maanaam bëriwul ñu ngi ñaan nit ñi tamit ñu yokk seen loxo pour ñu matali jéego bu mujjee bi waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant voilà. وظلم لظلام وسحر لساحر وباغ لباغ لا إلهي وعدتي كذا حسد الحسان غدر لغادر وكيد لكل الكائدين بهلكتي كذاك إلى العالمين عداوة لكل عدو يبتغي الدهر صولتي وطعن لطعام وقدح لقادح ومن حيل المحتاج من أي حيلة شماتة شماء وكشف لكاشف إلى ريقنا في الدار كل بلية أصل لك العدا كذا قرناؤنا وإياك أرجو من ولا إلى حبتي ومن قربائي يا إلهي وسيدي لك الحمد مما ليس Grande Mosquée Tiwawan.com ولا عده عبد عوائد فضلك العميم ومن عوائد سترتي وألوان ما أوليتني ربنا به من الرضا والإكرام واسع رحمتي إلهي لا رب سوى تطي الرجاء فإنك فاش الحمد عند الخليقة إلهي يا رب سواك فيرتجى وإنك فاش الحمد عند الخليقة إلهي لا رب لا رب سوى تبي الرجاء إنك فأتي الحمد عند الخليقة إلهي الحمد عند الخليقة وأنت إلهي باسم في الندى وغير مضال يا إلهي بحكمتي وأنت إلهي باسم في الندى وغير مضاد يا إلهي بحكمتي وفي الأمر والسلطان والملك لا منام جودك مولانا فيسر لمنيتي فما لك مولانا إلهي مشارق ربوبية ربي حياتي وعمدتي أي الخلق يا مولاي غير مزاحم لأنك بالإبداع موصوف وحدتي وأنت من الأخلاق تملك ولا يملكون منك غير المشيئة إلهي بقطب العارفين إمامنا وإلهي وغوثي للإله وسيلتي ختام النظام للولاية جملة نرتدي الغفران من كل زلتي بنا ارتجي فتح المغالق كلها وقايتنا التجار من كل شدة إلهي بقطب العارفين إمامنا إلهي وغوثه للإله وسيلتي ختام النظام للولاية جملة دين الغفران من كل زلتي لين تجيبت المغالق كلها بقائمة التجان من كل شدة إلهي بقطب العارفين إمامنا رجائي وغوثي للإله وسيلتي ختام نظام للولاية جملة زينة الغفران من كل زلة لنرتجي فتح المغالق كلها لقايتنا التجاه من كل شدة وكم اشتكي عند الإله زيارته زوايا ولكن العنان بقبضتي أنادي والد النداء أخا الجواب هل الدهر يعطيني مرادي ورغبتي وما زلت أرجو من الله وحده وإلا أنا الآن